Euh, salaamaaleykum ah, mbokk ami internet ah, ñu ngi waat nii tey ci seen scène bu mag bi Baol Média Rural TV euh, comme ni nga ko faral di defee ah xës la ci kàddu gi tey ñu ngi am seen émission bi nga moom euh, mooy à la découverte ñu dalal ci benn ndaanaan benn kàngam bu dëkk fii ci Sadio Ndaje ñu koy wax MC BK bu Double Accent ah. bon balaa ñoo def dara dañ leen bàyyi ngeen nuyoonteek moom BK ñu ngi leen nuyu waaw sama gars yi maa leen ziar yi ñëpp euh, di béggee képp ki nga xam ne yaa ngi dëkk Sadio ak li ko wër dina wax ne man la Bikey seen doom toujours yéen nga xam ne carrément ñi ngi si jàpp maa leen di béggee di béggee axlu Sadio yëpp ak li ko wër surtout maman ak yi nga xam ne carrément yéen a ngi bëgg Bikey di ko béggee toujours ak ñi nga xam ne ñi ngi may béggee te xaw ma leen maa ngi leen di béggee ñëpp di leen ziar waaw Bikey di béggee axlu Sadio ah ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ko bëgg ñëpp euh, Bikey turu Bikey fan la jógee turu Bikey waaw turu Bikey mi ngi jugee ci Best King quoi BK BK la quoi BK bi mi ngi signifie Best King mais BK bi dañ ko bindee en anglais BK ñu koy liiree BK mais bi BK Best King lay signifie quoi BK la mu ngi fi Best King mais boo ko liir ci anglais BK boo koy écriture ci anglais bii ngay def kay moo waral BK bi quoi mais tur bi carrément carrément c'est Best King quoi doomu Sadio. ok BK is the best king doomu Sadio euh, suñu émission nag dañu faral ko fi ñëw euh, bu dee rappeur nga wala ngay artiste musicien balaa dara da wane sa talent BK bëgg nañ nga may ñu benn freestyle bu tàng jër ñu xool lan la BK mënee. yow. ey maa ngi Sadio RTV seen doom bi ngeen di xool bi koy feeñ ci Bawal TV feexal seeni xool man boo ma déggul nag ma komp maa ngi si jobbu carré topp say fay Jurbel Dakar Mbour teglu carré maa doomu Sadio je suis fier d'être Sadio Sadio ñaanal leen seen doom bi jiital boo yow neemu Sadio maa ngi ci pegg bi xamal ne li may def la boo maa leen dàq rab loolu leer na maa ngi ci kaw de bro bi koy forever la maa ngi ci yoon bi di joblu carré yàlla tere pour ma arrêter parce que maa ngi ci niveau maa ngi ci jobbu carré mi ngi yokk naa beneen niveau am naa badu ci pegg bi am na euh, poro mu neex la naqari Sadio li war ma dàq bi laa añee di ko reeree dama dof ci rap bi koy forever la bandi bi dafa aay ci rap man boo may séentu sax wallaayil azim da ngay amee bi koy forever la bandi bi ku doon laajte faali ngooyee ngi ma dàq rap ci gem bi bi koy moo ngi nii freestyle di dem maa ngi ci Bawol TV man lu ma neex lay def dañ koy génne ci Bawol TV bi koy forever la bandi bi sew moo ngi nii ey na ñëpp bas kolos bi abonné ci Bawol TV ñaanal bi koy seen nam bi li mu yóotu jëli fu ma neex lay ndaari ndaari doomu Sadio maa ngi nii what's up yeah what's up eh, eh, li dal na boo bi am na talent mais ça c'est du mais booy foo laqatu woon ci Sénégal yow ki nga xamuñ la woon booba léegi waaw man toujours maa ngi si yoon bi di job lu carré à tout le temps maa ngi samay affaire parce que maa ngi bokk si ñaari compétition rap sa saay bu Dakar. dana si ñëw dana si ñëw mais avant loolu yëpp avant compétition yi yëpp euh, BK BK lan moo la dugal si hip hop moo la dugal si rap. waaw man ci rap mën naa ne Ngaaka Blindé am na ci wàllu quoi man yàlla dafa def ah, Ngaaka Blindé rek laa daan déglu man fu ma toll damay déglu Ngaaka benn sans après Ngaaka bi mu dooree néew di doole bi mu touché ma may xool Ngaaka di def ay affaires yu carré yu dóob ma koy topp toppandoo benn sans ma naan kii li mu def war naa ko def mais un jour dafa ñëw rek. Ah, suñu école bi amoon benn événement gars yi di dóor ay son genre yooyu benn waay bi naan Zoulion sama copain la yàlla yàlla jàppale ko quoi parce que instant bi léegi mi ngi armé mais moom ku amoon talent la macha allah moom moo ma dugal ci cadre mooy ma gën a def rap parce que un jour dama ñëw gars yi wax ni da ngeen di def son ma gis mu defoon benn son boo xam ne kii su seen MC yegg si na après si laa ñëwee contacté ko na ko bëgg naa dóor sound boobu mu jàppale ma si bañ jógee foofu mu ne ma yow ko am talent nga war nañ la man jàppale produit la genre yooyu noonu booba léegi si laa jógee di def ay kii nii freestyle yu ndaw genre yu ne public dama daan dem ci mbedd mi gars yi ñëw ma dajale leen public bi ñoom ñëpp di def ay freestyle gars yi yuuxu mooy loolu ainsi de suite école primaire yi mooy loolu dama daan woo gars yi ñu ñëw di freestyle benn instant fu ma daan toog damay waxantu même pas ba rab bi carrément wuy si ma quoi talent bi nag yàlla moo ko teel a def ci man macha allah ba tax na loolu daal nga ko blende ak Julion ba li tax man carrément heure bi may rab quoi di leen félicité bu baax a baax ndeysaan ah, Julien ñu ngi koy nuyu au passage moom aussi ku ne xam na ne rap SD da ko woon bon ci li mu nekk nag vraiment moom na ci gën a nekk parce que moom mooy ëpp avantage ah ñu ngi koy bëgg au passage bon kon Julien moo la dugal si rap ak Ngaaka Blindé bon tey gis ne yaa ngi évoluer ci rap SD ñu lay gis ci fépp ci site internet yi fu ñu tourné gis bii kay loolu lan lay def si yow en tant xale bu ndaw. Ah? oh en fait sant yàlla parce bu ma demee ba am lii. carrément damay sant yàlla parce que au début métti woon na trop carrément gënoon na fi métti parce que daanaa def benn affaire ñi ñu duñ ma sax lijjanti dama daan ñëw concert pour ma play problème la damay xëccoo di xëccoo mooy loolu instant bi ma xam ne carrément talent moo ngi ci man sama première son gars yi Julion gars jàpp ci ma def euh, Make Headway en en one dap euh, sama sama jumeau mën naa la wax après ñu def son bi carré gars yëpp apprécié euh, ma ñëw si la ma yi bàyyi xel ma commencé di ñëw par concert concert di toj bu ma dem dama fay bàyyi talent ba tax na gars yi di bàyyi xel bii kay ba instant bi bii kay mën a am doole bi bii kay waa Sadio mën ko gës parce que bii kay dafa doon koo xam ne la dafa am talan ba pare yëg ko ba pare gëm boppam war a gëm na fi gars yi àgg si kaw war na fa mën a àgg vision na boppam sori foo xam ne tur bi àgg na fa te jëmm bi àggu fa te incha allah ñaan nañ yàlla loolu ñu jot ci. ok en parlant de Wandab euh, au début dañoo gis sur scène yow ak Wandab la woon euh, su ma juumu sax yi nga tuddoon euh, Double X je pense les mais jamono jii nii dafa mel ni Wandab dafa xaw a raar ci scène bi wala ñu gistuñu ko daal lan la da ngeen a am problème wala. non non même pas ñu problème alhamdulilah ñu ngi si jàmm man ak moom te yàlla yàlla bu seytaane dox suñu diggante parce que wan nekk na nit koo xam ne ku am jom la nit koo xam ne ku gëm boppam man ak wan depuis suñuy xale la woon. ñu daan ànd même pas ba ñuy def rab di gars yi ñëw ñu yuuxu genre yu man ak moom la woon ak benn boy bi naan du kàpp yi mu dundoor ma yaa ma gën a xam après maag wan nag ba ñu collaboré nekk nii. ci lañ commencé di job gars yi yàgg nañ ñu gis ñuy ànd def nañ Make Headway def nañ euh, surkaw seen def sama xol def euh, sama réew yaa ma gën a xam après bu mu ñëwee ne instant bi li tax gars yi gisuñu woon wan mi ngi laaxatu di job lu carré parce que wan mi ngi Kaolack en ce moment nii mais wan ah, man ak moom ñi ngi paral dara parce que ba léegi neexul na dañu taaxali ko parce que euh, dañoo bokk label muy double X bi après ku nekk day joobeeli ci peeg bi joobeeli ci peeg bi un jour ñu ñëw def euh, ensemble def son bu carré gars yi xam ne carrément ñi ngi ànd mais yàlla tere man ak moom du ñu mës a taaxalikoo parce que wan man ak moom yàgg nañ waaw. Euh, bi nga yaa ngi jàng. wii en fait maa ngi jàng. nekk rappeur di jàng ah loolu mën nañ ànd nga yaakaar. oui parce que ñaar yëpp xel la booy dem école xel ngay utiliser. même texte bi xel nga utiliser bu nekk danga ko war a jox temps rek mais à ce moment nii nga jox njàng bi carrément li mu génnloo nga jox tamit hip hop bi li mu yelloo parce que euh, bu jàng jotee dañu dem jàng bu rab bi jotee mbubb bi jot ñu dinañ koy sol yi dem defe ji suñu wareef parce que rab bi talent bu yàlla def la si ñun quoi même jàng bi tamit étude la suñu devoir la instant bi tamit ñu koy def te suñu avenir la quoi. bon euh, loolu mën na nekk élève aussi mën na nekk rappeur parce que rap xel moo koy def jàng aussi xel moo koy def bii kay ñu gis la ci ay cypher mu mel ni da nga jël single yi ak vidéo yi yëpp teg à côté jël cypher yi. fan yi nga nekk ci ay saafara fii ba dakaar Diourbel ñu gis publication yi partout pourquoi nga choisir saafara yi. waaw en fait dama am talent te dama dama gëm sama bopp war xam ne carrément samay moromu artiste bu ma bokkee ñoom war naa leen man a faj parce que jugee Sadio dem ba Diourbel boo ko ji saafara yombul. jugee Sadio dem ba dakaar boo ko di say fa yombul dem naa Dakar joué naa benn budul benn may éliminer ay rappeur samay moroomu rappeur ba tey ji yàlla def may finalu xam nga di ko sant yàlla boo ko si Diourbel tamit compétition bi mooy open mic sayfa bi instant bi le 18 la war a joué ji sama poule xam nga que ne loolu gëm-gëm moo ma ko may ak talent bu yàlla def ci man parce que man rabalu ma à ce fii mais Sadio laay suturloo je suis fier d'être Sadio Sadio ba ba may dee mais aussi ñaan yàlla tamit couronne bi mën a ñëw saajo boo fi ñu tëgg doomu Sadio ki jiite ki dàq rab ci Sénégal Sadio la dëkk xam nga loolu sama ndam la quoi ndamu Sadio la. Euh, ñun nag suñu émission moo la fi ñibee noonu day yomb trop parce que ni nga da nga am talent sa talent pour nga prouver ñu ko dañ lay jox benn affaire bu ndaw rek balaa ñoo jàll ci question yi benn affaire bu ndaw rek nga freestyle ko dañ jox euh, caméra caméra rek nga nga dawal. yow hey xës ma may jox yow benn caméra BK Forever am na talent teg si gone la danga may songu rek ma wat la Nelson Nelson Mandela BK Forever xale bu ndaw la teg si yow gone la man boo ma songee pare nga bi BK Forever pare na damay ñëw feesal arena waxal sa rappeur ne ko pare naa bu yàgg ah fu ma neex fële ma ma tegal benn caméra badu di ma camera ma aj ci bat bi daw ak moom BK comme si Ali caméra BK Forever la bandi baa ngi nii te xale la. non man d'accord naa je valide quoi man valide naa talent booy bi te je pense que ñi seetaan tamit dinañ valide talent booy bi bon avant tout abonné leen ci site bi xam ne ngeen toppaat ñu ci yeneen a yeneen parce que émission yi des na des na découverte bi man Kheus Pro maa ko yor te des na yeneen yu war a ñëw ci kanam mais Bigué lan mooy projet yi. waaw projet yi mooy que ne gars yi nañu xaar parce que lépp surprise la quoi. parce que euh, am na concert yu war a ñëw si kanam le premier janvier ñu ngi war def concert fii Sadio gratuit. ak Amfiplor Amfiplor family mais aussi tamit euh, gars yi nañu xaar BK parce que xam ne li mu laax bu génnee. dina yàq bopp rappeurs yu bëri dina toj tamit ay bopp mélomaan parce que bii kay à ce moment nii mi ngi joobal say fay mais mi ngi joobal public di leen wax que ne gars yi nañ ma bàyyi xel xam que ne li may joob du pour fii quoi li may joob tamit pour si kaw a kaw la ñi nga xam ne carrément jiitu nañ ma nañ ma bàyyi xel xam ne maa ngi ñëw lu mu yàgg-yàgg dinaa agsi te bu ma agsee bomb dina kalaate parce que bii kay xale la te aussi mi ngi si yoon yàlla may na ko talent te aussi li ma bëgg rek ñaan naa yàlla ko bu mu fekkee maa ngi am ak tan gëm naa yàlla Rap Galsen ñibbi si fii relation ak rappeur Sadio yi damay tudd tur génn nokkos nga ñëw génn nokkos ba pare booy mayoo mayoo booy dara booy lu ñu def nga xëpp ci kaan yi lan mooy sa problème ak rapport Sadio te ngeen bokk même localité bi. non en fait même pas xam kii ñëw na def na nokkos te titre ku nekk moo ko moom. Eh, mais Moussa dafa taxaw nag Moussa gis nga son clip bi mu génnee fan yii nii même pas deux jours mu laal un cas. wax la benn affaire ñun titre wuñu ñun aussi jaayuñu taar ñun xamuñu ñu xëccoo. Ah, kon Moussa da jaay taar. non même pas waxuma da moo jaay taar rek. dama ne la tiitu. waaw booy mu ngi lay pig de booy mu ngi lay pig de loolu dañ koy tontu de. man jaayu ma taar tiituroowu ma donte man yàlla may na ma talent dama koy viser boo ko ci si li gën a jafe ci rab dem ba pare jiite ju fa nangu ji carrément fii wax ji mooy bari mais booy bi ñemee bii koy yombal. kon yow pour yow Moussa TCL ñemewu la ko non même pas du la wax mais booy bu ñeme bii koy fii yombal. non ñemewu la. non ñemewu ma booy bi nee ñeme woo ko de loolu dañ ko war a leeral après sa diggante ak euh, danse hip hop. gis nañ ay problème nag bu fi daw. yàgg danse la moo seen problème benn cas bu may daw wala ci lenn man n'est-ce yi man moom même pas man xaw ma lan la parce que dugal jékki-jékki na quitté sama groupe. après ba sama groupe daal daal di may génne ci groupe am même pas que envoyé ma ko mu demee parce que du mën a nii la demee parce que xaw ma en fait nu mu demee parce que man maa ngi nii daa sa moment que ne man. yàlla dafa def man liggéeyantuwuma kenn fii xooluma leen sax. parce que mais mais est-ce que ay rappeurs war nañu gaañoo sax. <laughs> non xaritu rappeur dëmm la bis bu lay coob doo ko fexe parce que ñoom instant bii ñoom carrément gis nañ ne maa ngi ci yoon bi moo waral ñoom ñëpp ñu soppeeku wan ma beneen koor wan ma beneen yoon beneen ma beneen jëmm moo xamuloon xamul woon ñoom parce que instant bi ku nekk jug na pour daw sama kaw dal sama kaw mais man ak tàllaa boo xam ne picc bu ci daanu day lekk ma ëf ko mu jeex mu seey parce que bii kay dafa doon koo xam ne day laxe te day ñafe xiiru maafaal gi xam nga xiiru maafaal gi <laughs> xiiru maafaal gi jogo yor gu ko raw laa yor. ndeysaan ah xale bi nee na xiiru maafaal bi la téye rappeur bu ko ci ma dugg la koy caw. ah man nag sama yoon nekku si ah man je suis là pour tous les rappeurs pour tous les jeunes rappeurs képp koo xam ne gis nga sa talent wóor sa bopp ñëwal ñu toog jàkkaarloo. moom mi ngi ñu toog na wax na lu ko neex sànni pic fu ko neex tamit nee na Mouha bu teeseel la ko ragal booy Danco da ko retiré ci groupe am ak leneen ak yeneen yoo xam ne ay fee la mu ngi si biir waaw léegi moom mu ngi nii dawul dara léegi falu Fallou euh, Bikey euh, avant ñuy tàggati ko parce que temps bi ma ñu commencé dem dañu la laaj euh, lan nga bëgg a indil saa yoo ci hip hop lan nga fas yéene indil saa ci hip hop. man li ma li may wax ni carrément pour hip hop Sadio. damay wax gars yi nañu job quoi te bàyyi événement yi ñu topp parce que euh, boo xoolee en ce moment nii gars yi bala ñoo gën a joob rek dañuy neex ba événement jub ñu doog a joob te rab dafa doon loo xam ne da ko war a jox gëddam mënoo ne yow artiste nga te ku gëm sa bopp nga carrément Edmo mi ngi may dégg Kamou mi may dégg ñoom xam nañ li may wax ñoom xam nañ carrément li may wax nit kiy job sans événement ak kiy job carrément bu événement jubee c'est diamétralement opposé waa Sadio maa ngi leen di wax que képp ku dëkk Sadio ak li ko wër ñaan rek ngeen di yokku daanaka instant bi li si dese objectif bi yëpp dañ koy def mais que ne ngeen bàyyi xel bii kay xam ne li may nar li may nar cuuna du ko gis te instant bu paree bu sottee dina lakk ay taati rappeurs yu bari te man nag da awma droit di dugg ci kenn wala ci di juti kenn parce que xooluma leen. booyoo booyoo doo ci génn. booy yow daa bëri nekk yëpp ngaa ay lakk taat ay yet ñun nag. amul ku may bàyyi parce que man yàlla defal na ma kii ma doon xale nangu li ma doon waxuma kenn liggéeyantuma kenn mais képp ku yóotu bii kay ba teg ko loxo di nga bëgg a teggi mu tëla parce que xiir gi lay ñam doo xam fan lay jógee. rap politique. en fait boo déggee ñu ne rap politique man woo nañ ma contacté nañ ma jéem a defloo. liggéey liggéey ku moom xar wi nga bàyyi buum bi rappeur ak politique est-ce que ànd na liggéey dafa mel na ngay politique yow. non même pas waaw des fois man bu ñu ma woowee ma xool xam ne sama dëkk carrément war na am lu ko développé sama dëkk am na fu mu war a àgg ma gis na ko carrément loolu noonu moo ko mën a avancé te sama baat bu jugee ci kaw ñi ñi déglu ko non même pas man du ma def euh, pour xaalis wala pour dara mais dinaa def objectif boo xam ne pour sama dëkk mën a développé ma def sound boobu. mais yow mais yow laa fay xaalis bëri pour pour nga génneel sa waay benn xam nga may wax. non même pas ku wax na dañ ma fay xaalis bëri day wax lu ko neex fay fayuñu ma dërëm maa ngi nii dañoo jékki-jékki ma jékki-jékki gis lu ma war ma ne dama koy def man xooluma ci kenn basé wu ma ci kenn man dama nekk si yoon je suis en route mais saa amul koo xam ne maa ngi lay bàyyi xel wala ma lay lijjanti nii day rappeur parce ñoom ñi ngi may dégg xam nañ li may wax bu baax lijjantiwuma kenn faaluwuma kenn ku waaye mën war na def mais saa bi li sama yoon ma visé ko dama koy jëli te booy bu ma nar a kale ma faat la teg la fële continuer sama yoon yi taal bu yàlla taal la bi kay déggoon ngeen ko samay singal te lu yàlla tracé nga ne da ngay effacé mu tracé waat nga effacé bu tracé waatee nga effacé da lay effacé jàll bon jot nañ fi nag ay message yu bëri yoo xam ne ni ci yow la jëmoon mais nag comme que temps bi dafa ñu xooj benn lañ ciy posé benn kese euh, gars yi nee nañ bii kay question la nag dafa laal réponse nañ bii kay pourquoi muy taal boppam naan mu ñu ne cabessier te su ñëwul sax rek sas ma la wax loolu non question la réponse la laaj tax wax la la daf la wax lu la neex wala message bi jiitu man sama objectif man Jazz Kana laa amal collaboration Jazz Kana moom may teg ci code à tout time man sama objectif sama vision Kabese la parce que man ngaa ko dégg nee naa la ngaa ko bilen moo ma dugal ci rab tey jii label bi ma gën a jox ak xam Kabese la loolu moo waral lépp man bu ma demee Kabese laay suivre Kabese moom laay teg sama lépp sama objectif yëpp Kabese la kon ñaanaa yàlla ak foofu ñii lay wax loolu genre yoo noonu ne leen nañu def attention ka nga lu métti métti lu yàgg-yàgg bi kay àgg te Kabechia incha allah bu ma wu ñëwul soxla ma gaaw signé label quoi jamono bi saan euh, kon waa Baol Média TV avant ñuy tàggatu ko yéen euh, dañu leen wax ci présenté laa leen booy bi bii BK la Sadio la dëkk am na talent xam nga moom aussi il faut xale bu ndaw la il faut ñu jàppale ko comme ñëpp aidé ko parce que bëgg na li muy def xam nga ñi may dégg ñëpp nañ ko aidé booy bi am na talent bëgg na li muy def mais avant ngay tàggatu ko lan ngay wax waa Baol Média Rural TV waa gars yi maa ngi leen bégee aussi di rafetlu seen émission bi bu baax a baax a Baol Média TV di la wax que ne amuñ seen fay mais aussi tamit euh, di féliciter sama xam ne mooy sama maman moom vraiment à ce moment ni sonn na ci affaire bi mu ngi siy jàpp actuellement am naa si ay ñaan parce que ñaan waajur boo ko amee doo sonn parce que gis naa ne moom mi ngi jàpp ci combat bi à tout le temps même pas que di bégee ñi nga xam ne carrément yéen a ngi bégee Bikey Dakar Mbour Sadio ak li ko wër Gassane lépp nga xam ne yéen a ngi bégee Bikey maa leen bégee te xam ne carrément ne lii lii la yàlla def seen doomu doon artiste da koy ñaan parce dinaa dégg lu nekk nag yoon bi dina tar mais ne ngeen xam ne carrément lu métti métti dinañ àgg fi ñu jëm te am nañ vision bi di bégee ñëpp di bégee tamit euh, Omar mi nga xam ne carrément moom mu ngi si jàpp Omar Omar Thiam à tout le moom fu may dem bu ma ko contacter day day ñëw parce moom sonn si gis na affaire yëpp te sans dara maa nga xam di ma wax ci ay affaire di bëgg gars yu bëri yi nga xam ne boo limee da ngay juum quoi Sadio ak li nga wër di bëgg axlu bépp quoi même si maa ngi bëgg gars yëpp ah ay genre collègue gars xam ne moo loolu axlu kaneen bi yëpp daanaka gars yi ñoom dañooy conseillé yi saa di ma réeloo sax parce que xale yi la xale yoo ko bëgg non xale xale pas parce que boo gisee ñoom gars yi ñu kumba gars yëpp gars yi dañu may dañu may wax benn affaire xam dañu may may nga dañuy neex fii di mu wax bi kay nii bi kay naa genre yoo noonu yoo xam ne loolu parce que instant bi loolu mais ñoom Kumba ñoom Mia ñoom Sonia ngay boole benn freestyle tëjee ko yaa ngi dégg loolu lañ bëgg nga tëjee ñu ko comme ça ñu tàggali ñu tàggali ko beneen yoon man a yow duñ duñ mas a jeexal dinaa ñëw ba sa koñ fekk la fa ñu tegaat lu nice parce que sama jóo nga xam nga li ma lay wax baax yaa ak sama rakk la woon léegi Kumba Mia ak Sonia nga tëjal leen nga defam benn brève ndaw si ñoom benn freestyle bu tàng jër nag bu lakkee wu rek bëgguma yow ok bàyyi ma teg ko sama site Sadio sama site man mënuma wax dara parce que gis naa booy sama paradise ah freestyle ba léegi maa ngi wax ci benn soña bi gone la gis naa dafa am talent te jongoma la damay gis benn milliard dama koy jàpp rek man ak moom xam ne lii la yàlla def fii ba aljanna ok fii gis naa lépp benn booy nu mu tudd kumba xam naa ne moom la am na ful la teg si bañul kumpa gis naa booy kolle fu ko neex mu fële amul lu ko tële ah freestyle ba léegi maa ngi gis yow booy bi Eva dama dàq rab ci game BK moo ngi nii ak Eva ah maa ngi freestyle mu ngi may jàpp di ma rayal teeñ BK forever la moytu leen ko wex ne ni kaani xeeñ rappeur yi pare nañ ma jàpp leen dugal ci teen wallahi BK moo ngi nii ñoom ak ñoom wallahi du benn yaa wis kontaan nañ bégg nañ leen yéen ñëpp ah. émission bàyyi noonu close ak beneen émission quelques jour yaa ma gën a xam